fa lenn loo xam ne mun na jël Sénégal jële ko point A yóbbu ko point B du ci dara lu dul jël ab euh, euh, boo seetloo ñi nga xam ne àdduna yëpp ki nga xam ne Ndeye Khady Ndiaye ñu accusé ko ak ki ko accusé amul lenn luñ fa wax loo xam ne war na mun di lu mu leen nit tarafatal ay ni Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñu ko ñuy wax yëpp displiqué na ko depuis Ndeye Khady témoin bi maman ba ba ci docteur Alfousseynou Gueye amul lenn loo xam ne feeñ na bi jaroon tey jii quatorze morts dee si mu nekk nag loo xam ne tey jii képp kuy sénégalais képp koo xam ne jàppoon nañu réew mi tey jii dafa am fenn foo xam ne waroon nañ ko fa tollale war nga rus war nga am lu la naqari yaakaaroon naa nag ñun bu ñu yëkkati suñu loxo mu nekk loo xam ne c'est un contrat moral que nous avons vis-à-vis des sénégalais mooy ñun dañoo ñëw ci politique bi te kenn forcé wuñu xam nga man tey jii un membre de PASTEF y a un autre qui membre de Benno je sais que kenn yëkkatu ko biir këram ne ko kaay nga taxawal askan bi kaay nga waxal askan bi yow yaa jël sa coobare bopp nga ne man damaa bëgg njëriñ sama réew damaa bëgg taxaw sama réew kon damay ñëw dugg ci langue politique bi ñun na xalaatoo woon nañ ne politique bi dinañ ko defee neneen ñun Pastef nag dañoo gëm ne ñun dañoo am contrat moral avec ce peuple la contrat moral bi mooy ñun ñuy yëkkati loxo te kenn forcé wuñu ñëw taxaw temm ci li nga xam ne moom mooy njëriñ askan bi loolu nag bu la ko askan bi nanguloo ko tey jii ma nekk honorable député nekk représentant du peuple mu am ñeneen nag ñoo xam ne ñoom laa ko bokkal ci yeewi askan wi ci pastef je pense que ce qui nous lie aujourd'hui avec ce peuple là c'est un contrat social tey jii nan lañu ñu war a def mooy seet njàng bi ñoŋ tey jii lan lañu ñu war a def mooy taux de chômage bi nga xam ne mu ngi gangrène na sa pays là ñu jóge ci tey jii lan lañ war a def mooy baykat bi gis boppam ci li ñuy li nga xam ne moom moo moom moom fa lañ war a jëm mooy bay bay dans la modernité mooy sàmm sàmm dans la modernité man doomu béykat laa doomu sàmm laa ci àll bi laa yoroo maa nga jóge ba geng neew waaye nañ doon béyee démb ak barki démb dans les années quatre-vingt mbay moomu lañ xam ba tey da ngay furaasu da ngay xuuj ay loxo yu métti doo am matériel doo am semence boo xam ne moom moom nga moom nga a demee boo demee xale yi tey jii ñu ci bëri am nañ ay diplôme tey ñoo nga toog et on nous d'émergence on nous parle aujourd'hui que ñu tey nous avons des ressources naturelles on nous parle que ni am nañ zircon on nous parle que am nañ gaz on nous parle nañ pétrole tey jii ñu waroon génne ay kàngam ci école yi ñu taxaw loolu pour que suba képp nga xam ne am nga tout tànk nga am tout tànk boo xam ne comme nu ko dëkk Europe yi tey ji nga xam ne seen doom yi dañuy dem ba duñu soxla liggéey ndax dañ leen di préparer ñu aduna comme tey ji Qatar bi nga xam ne moom la coupe du monde amoon nga xam ne pétrole kese kese kese kese am te tey ji boo demee foofu train de vie mu ngi toll na ko neex ñun sénégalais yi ñu nekk ci ñàkk fayda yi ñu say sénégalais yi ñu mën a nangu ñun sénégalais yi réew Ahmadou bàmba réew Mame Maodo Malick réew Cheikh Al Islam ñu mën a nangu procès bii ñu am ay kilifa yi nekk ci réew mi di fi yeewoo di nangu lii man loolu moom moo am loolu naqari googu laa am parce que dafa am ay kàddu yu nga xam ne ñu ko fay génne foofu man dama gis ne est-ce que na ko est-ce que loolu moo waroon tax tey jii ñu yeewu ku ci nekk di dangaan yéen est-ce que leen information boo xam ne tey jii dafay yóbbu Sénégal ca kanam est-ce que soxlawu leen matière boo xam ne tey jii yéen ñi da ciy jàng jàngal ci askan wi parce que convention bu ngeen signé ak état bi la mooy tey jii Euh, informer mais également former. mais est-ce la ci le fait que mu lànk fautif la ci la non non non non du fautif Ousmane Sonko dina fekkee say say ci benn regret. amuñu ci benn regret il a raison il a eu raison sur tout le monde aujourd'hui le fait que ñëwul fii lan lay wut avocat yi sax mujj nañ gedd euh, imagine nga gis Ndeye Khady Ndiaye à elle seule à elle seule. le le procureur et le juge mënuñu jël le dessus sur lui. sur elle occasion mu ñëw pour setal deram. setal deram par rapport à quoi. non non non yow ce dossier là. kaay nañu waxante dëgg nag. li fi li nga fi dégg nii. déggoon nañ ko en deux mille vingt et un amul lenn loo xam ne dégguñu ko déggaat ko. xëy na tey jii dañ doon dañ dañ doon dañ doon mottali seen yéene ñoom mooy kii kaa leen ñu yàq deram ba sénégalais duñ ko bëggati mais loolu du mun nekk parce que. Pastef nag ak Ousmane ko am na lu ñu teg ci kanamu askan wi ba nga xam ne loolu lañ jiital c'est pas une question de personne mais c'est un esprit qui est là c'est un projet qui est là boo xam ne ñëpp dañoo jàpp ne lii nii bu ñu ko tegee tegalee Sénégal incha allahu dinañ gis Sénégal bu naat dinañ gis Sénégal boo xam ne doomu Sénégal dootul sawar naan dafay jël gaal yi di deewi ci àll bi waaye day toog fii dund fi màggee fi amee fi njabootam lu mu fi bëgg mu am ko fi. en tout cas ci gàttal lii laa amoon lu may wax na leer ne la plupart ñi nga xam ne dañuy génn hmm. suñu waxul lii ma xam ne bëgguñu Sénégal tur bi naka honorable Ismaïla Diallo député Ismaïla Diallo gis ngeen ko mi ngi noonu génn na euh, moom moo doon addu gis ñu ay euh, micro ci euh, moom nag mi ngi woon ci biir salle d'audience bi ci procès bi doxoon ci diggante ki nga xam ni effectivement moom mooy Ousmane Sonko ak Adji Raby Sarr moom nag génn na gannaaw ba mu nekkee ci suba depuis ce matin ba léegi ñibbi na nee na nag vraiment euh, tey dafa rus dafa amee kersa maanaam gàccee la amee ci li nga xam ni assisté na ko ci euh, dund ko ci ville salle d'audience parce jàpp na ni Sénégal fi mu ne nii euh, kilifa yi nga xam ne ñi ngi fi nekk waruñu quand même seetaan ñuy seetaan procès bu mel nii di am. parce que jàpp na ni Sénégal quand même mérité na lu ëpp li euh, am nañu euh, yeneen i priorité yoo xamante ni si nii moom moo leen euh, gën a yitteel moom moo leen gën a soxal à ce que euh, ñuy euh, assister ci euh, procès yoo xamante ni si ni jàpp na ne procès bu vide la waaye itam gis na ni itam kaddu yi nga xam ne yëkkati nañu ko foofu daal en tout cas nekk na kaddu yoo xamante ni si ni vraiment kilifa yi waruñu woon a quand di seetaan ba tax sax moom nee na xamle na ni bu fekkonte ni amoon na. maanaam dogal wala genn kilifteef dafay jël procès bi mu dakkal ko ci anam gu mu gën a gën a gaawe en tout cas moom itam nee na amul lenn loo xam ni réccu na ko ci ñàkk teew gi nga xam ni eh, kii di Ousmane Sonko ñàkk naka teew ci bile eh, procès parce que jàpp na ni amul dara dara bees loo xamante ni si nii eh, am na ci mbir mi lépp kon voilà 2021 euh, Sénégalais yi déggoon nañu lu ni mel kon mu ngi noonu mu nekkoon euh, ci tënk rek euh, li nga xam ni génn na doon ko yëkkati doon ko àddu ci li nga xam ni moom mooy suñu ay mbir voilà mi ngi noonu puisque dañu nekkoon ci ki nga xam ni moom mooy honorable député monsieur Diallo boobu noonu la Sidi Ahmed mbay nag voilà ci mbiru Sweet Beauté bi yéeg na ba wàcc ba instant bi woolu nañu woolu nañu ki nga xam ne moom moo di capitaine Omar Touré instant bi moom la attekat bi woolu mais nga ci tënk rek ñu résumé leen kàddu yi nga xam ni moom euh, kii di euh, Sidi Ahmed mbay euh, kon na daal na koy wax gannaaw ba <coughs> nga xamante ni si nii attekat bi wóolu woon na ko ci dossier Sweet Beauté bi moom Sidi Ahmed mbay mu xam le ni euh, en 2018 jàpp 2019 la xamante ak ki nga xam ni mooy aji Raby Adji Raby euh, Sarr euh, fële ca section recherche la njëkk quand gis Ndey Xadi Njaay nee na it ñetti yoon la masa dem fële ca Sweet Beauty moom Sidi Ahmed mbay bi ci njëkk kon na lekk lafa doon yóbbu ñaareel bi da doon seeti ki nga xam ni moom moo di Adji Raby Sarr ñetteel bi mooy guddi gi bi muy jëli ki nga xam ni ah, moom mooy Adji Raby moom Sud FM day moom mooy yëkkati kàddu yu ni mel nee na ñett yoon la mas a dem fële ci kon na ah, salaw suite ba waaye ki nga xam ni mooy Adji Raby Sarr itam ñi ngi xamante ah, ci atub 2018 jàpp atub 2019 ba tey ci dossier suite ba tey moom Sidi Ahmed Mbaye nee na kii di Adji Sarr da ko waxoon ne daa am kon na waaju ñëw fële ci suite ba tey da ko sonal teg ci Euh, di ko quand même yàkkataan voilà moom nee na kii di Adji moom moo ni ko am na kuy ñëwoo fale ca Salon Sweet Beauté boo xam ni en tout cas sonal na ko mi da koy rek siif yàkkataan maanaam mooy euh, siif euh, nee na mu mu ne ko Ousmane Sonko la waaye moom gëmu ko woon moom Sidi Ahmed yooyu kàddu la yëkkati nee na Aji Sarr dafa xamal ni ko am na kuy ñëw ca salon sud ba te di ko siif mu nekk kan la ci la ko waxee ni Ousmane Sonko waaye moom mooy Sidi Ahmed Mbaye nee na gëmul woon li nga xam ne moom moo di waxee Aji Sarr jooju atte ki nga xam ne moo di juge bi nag laaj na Sidi Ahmed Mbaye ndax moom ak Aji Sarr dañoo quand même euh, teggoon ni pexe ngir am ay euh, firnde Sidi ne ko déedéet voilà kon preuve yi nga xamante ni si nii Adji Sarr doon na ko wax kani moom yore na ko waa ki nga xam ni xëy na frère la wala Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye wedd na lu ni mel la ko juge bi laajee ni ko euh, dangeen ngeen a euh, quand même euh, yore yenn ci ay preuve wala da ngeen tegoon yenn ci ay pexe yoo xam ne da ngeen ko tegoon pour am preuve Sidi Ahmed Mbaye nee na ko déedéet loolu amul Sidi Ahmed Mbaye nee na docteur moo ko jël si këram ñu ànd moom docteur Ousmane Gueye ñu ànd ñoom ñaar jëli ki nga xam ne moo di Adji Sarr fële ca suite boote Sidi ne Adji Sarr moo ko wax ne am na man yu Ousmane Sonko voilà moom ma Sidi Ahmed Mbaye nag nee na <coughs> en amul genn pexe yoo xam ni teg nañu ko ngir euh, jéem a ami preuve maanaam ami firnde ci euh, viol gi nga xam ni Adji saar nee na aji da ko Sonko daf koo ko violé te boobu ba léegi mi ngi doon wax que ni am na en tout cas preuve mais Sidi Ahmed Mbaye moom nee na du benn preuve boo xam ni en tout cas am nañu ko euh, en tout cas ci mbiru boobu noonu léegi de toute façon moom daal nee na kii di moo ko docteur Afousseyni Ndege ñu ànd jëli ko Adji Sarr ni ko am na mën yu ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko. Euh, ba tax euh, mu ne lu toll ci ñetti nit ñoom ñu ànd ak Adji